taxaw hmm. dossier bi traversé ma ni ma traversé man bu ñu ma wooyee du ma wuy ci hmm. waaw parce que Abdou Khadir xam nga kan moo lay woo nga wuy ci hmm. mooy koo jàpp ni bu la bu la wooyee dalay atte ci ay loi wala koo xam ne la wooyee dalay atte selon li république bi teg waaye ki nga xam ne nii daf lay woo nga ñëw mu jël paaka teg ko sa put boo demee wuy ji ko da ngaa xaru moo tax man bokk naa ci ñi njëkk a wax ni Ousmane Sonko buñ ko wooyee bu doon maay mooma laa wax du ma wuy ji parce que nag Abdou Khadre réew day nit dañuy toll foo xam ne àdduna ñaar moo fi ne da ngay choisir dund wala nga dee te gor am na loo xam ne buñ ko ko bëggee def mu dee wuute ko moo ko te ñun suñ maam yi ngay gis fii suñ maam yi laa la wax nga xam ni ñoom ñooy suñuy référence am na ci ñoo xam ni bi tubaab bi ñëwee bëgg leen a jàpp esclavage leen jàmm ñeen ñi dañoo taxaw ci taatu gaal yi di daanu ci ndox mi jën yi lekk leen moo leen gën a jàpp leen jàmm réew mi na dëkk bu ñuy wax ngor ngor mu ngi fii suñ ginnaaw am na dëkk bu ñuy wax gore xam nga lu indi turu dëkk yooyu bi fi tubaab yi ñëwee di jàpp nit ñi jàmm bu ñu ñëwee ba ci bunt bi ba war leen teg ci bato yi pour ñu dem am na ñoom dañuy préférer plonger ci ndox mi jën yi lekk leen tey situation boobu la Ousmane Sonko di dund moo tax waxul ni carrément du wuy mais ay militant ak ñi ko jege liñ ko gëmloo muy dossier bi dossier caaxaan la boo ci demee dañ lay tere nga bokk parce que tribunal bii moo tere woon xalifa sàll bokk moo tere woon Karim Wade bokk mm-hmm. léegi nag kenn ku ci ne da ngay jël say responsabilité réew foofu lay toll li nga xalaat ak li nga gëm nga wax ko lépp lu la daal nga assumer ko te Ousmane sonk loolu la def man kenn nettaliwu ma man maa jóge àndulaay daw ba ndakaar ñëw assisteel sama bopp meeting bi man meeting sax li ma koy assister bariwul man meeting du ma koy assister wala bariwul gëj naa ko def xanaa ca jamonoy trois juin ja bi ma ñëwee maa observe observé sama bopp te du man rek maa ko gis Sénégal ko gis opinion nationale bi ak internationale bi ba RFI ci boppam ñu wax ni mbooloo mi daje démb Kër Massar musul am ci histoire u Sénégal loo xam ni dafa dajaloo te politique lal ko te li li ma gën a seetlu ci mbooloo mi ñu ci ëpp ay ndaw la loolu du caaxaan loolu il faut ñu taxaw jàngat ko bañ koo ragat te jàngat loolu ay tappale mayewu ko Abdou Khadre loolu ay négocier mayewu ko loolu kuy siifaate mënoo am loolu parce que man nee naa leen kenn moomu man man ginnaaw kenn nenu te billaahi bala ñoo xam ne Ousmane Sonko moomu ma tey mu jëloon réew mi am beneen position bu mu am bu bokkut lii muy jaay nit ñi waaye mbooloo mii ma gis fee démb ay négociation mayewu ko ñun li ñu miinoon ci senegal kilifa diine lañ daan gis bu yëkkatee kàddu nit ñi daanu jël di yuuxu. ah loolu am na fa. maa ko fekk kenn nettaliwuma ko man gis naa ñoo xam bi Ousmane Sonko jegee yëkkati kàddu dañ doon yuuxu di jooy comme ay jigéen parce que dañoo am ci moom cofeel parce que dañoo am ci moom yaakaar parce que dafa am projet bu mu leen jaay loolu nag. Abdou Khadre képp ku bëgg jël rideau doxale ko sa digganteeg loolu ni man gisuma ko ni man kut koo kut kii dinaa ko éliminer jàpp naa ne lépp lu xew ci réew mi ëllëg yow yaay responsable naxante c'est ça mais au euh, au delà de sa imam c'est très important gis nga loolu képp ko xam ne da ngeen yow gisoo ko li ngeen di wax yëpp dégguma ko li xalifa généraux yi wax dégguma ko mm-hmm. ngeen ñuy wax dégguñu ko ñun daal kut kuk liñ bëgg mooy nañ ko éliminer ba du bokk dama ne loolu képp ku ko essayé boo ko defee lépp lu xew ci réew mi na nga ko assumer gëm ni yow yaay responsable parce que fii nag mosoo fee gis ñaari bàmmeel benn bàmmeel rek moo fi am Abdou Khadre buñ naxante te réew day toll foo xam ne il faut ñu waxante dëgg balaa réew maa tàkk parce que ñun bu dee façon médiation nekk def nañ man mii jóge naa fi dem toog président de la République jël samay responsabilité waxtaan ak moom assumer ko ci contexte bu jafe ay ma dégg ci lu nekk nag donte man ah, moom naa sama bopp moom goo xam ni déglu ma ma sàmba wala ma demba ci li ma lépp lu may def lépp lu may def dama koy assumer lu sama conscience nangu rek dinaa ko def waaye tey damay wax ni mënta ñàkk bu dee dañoo bëgg réew mi te bëgg Sénégal yéene ji ñu am ci Ousmane Sonko ñu teg ko ci suuf parce que Ousmane Sonko wax na leen boppam Ousmane Sonko lu leer la wax. nee na leen def naa sama testament Sénégal yëpp ko dégg dem dem naa ci sama bàmmeelu bàyyi raay naa ko pare naa pour jaay leen sama bakkan te loolu du xaru ah loolu du xaru parce que bu dee ñun l'islam bi ñu yonent bi jàngal sallallahu alayhi wa nga xam ni ci la ñuy dellu ñun buñ gagee l'islam daf lay wax ni buñ la jaayee bu boo demee ba gis nañ laa bëgg a jaay doole bëgg laa not salfaañe say àq ak say droit da ngay taxaw nga résister te loolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam def na ko jàngale na ko. d'accord sunu constitution bi it. effectivement na ko balaa ñuy ñëwaat. te loolu dinañ ci ñëw ci résistance bi. bi ci boppam mooy lan. Mhm. ak nu ko lislaam gisee. Mhm. ak maanaam constitution bi ci boppam nu ngi ko mayee ak historiquement réew mi ci boppam mag ñi fi nekkoon ban façon résistance lañ doon def justement euh, wax nga ko imam dès le euh, début d'ailleurs ni koy wax que c'est un complot du côté de Sonko en tout cas euh, discours bi aussi euh, dañuy dégg discours boo xam ne discours bi hmm. bu fekkee ne dañ la mettital wala ñu teg la injustice nga jàpp ne injustice la mën nga ko xeex mën nga am hmm, stratégie boo xam ne moom moo koy mëne mais est-ce que discours bu violent bi gën a attiser le feu ba tax euh, ñu gën a mën a précipité wu ci loo xam ne ay la bu ñu gaaw a jeex waaw Abdou Khader xam nga violence amul benn sénégalais boo xam ni da ngay d'accord ci violence man de gëwuma violence te duma woote ci violence te képp ku ma xam ne day def violence du ma la fréquenter waaye violence dafa bari façon violence verbale dafa am yaa ngi dégg violence physique violence dëgg mu ngi tàmbalee ci nit ki lépp luy droit am nga xañ ko loolu mooy dëgg-dëgg violence parce ñu wax ni baat yi li muy firi violence mooy nit koo xam ni da ngay xëy suba ba ngoon jot di dugg ci vie privée di wax fameem di wax ethnie malheureusement loolu mooy dëgg c'est la première fois ci histoire Sénégal ñuy politique di fi tudd ethnie loolu musul am ci réew mi réew mi fii dañoo mus am tolérance. wala di xawee surtout non xam nga baat yi buñ ko ragalee du sotti. Hmm. parce que réew mi foofu la jëm il faut ñu waxante dëgg balaa réew mi tàkk. Hmm. réew mi ñun dañu ni bërit am indépendance ñu fal ku ñuy wax président Senghor ab majorité jullit musulman ñoom ñoo ko fal. mu bokk ci jàngu bi ay kilifa diine gunge ko. ba mu yër réew mi ba dem mu dem jox réew mi Abdou Diouf Abdou juuf kenn mësul xam ban tarixa la bokk mhm. jabaram di catholique loolu tolérance la parce que ñu dund nañ ci yeneeni réew yoo xam ne loolu amu fa le monde arabe rek boo fa demee tey boo ñëwee xam nga bu ñu lay nuyu xam nga lu ñu lay wax anta muslim ndax yow jullit nga mhm. boo nee jullit nga ñu la alhamdulilah boo nee leneen nga ñu dumóoyu la loolu amul fii senegal mhm. ab Abdou Diouf jabaram chrétien la woon Élisabeth sénégalais yi toléré ko muy dem jël Ablaye di jox ko réew mi kenn mosu fee dégg mbirum ethnie kenn mosu fee dégg mbirum confrérie yi Ablaye Wade ñëpp xamoon nañ ne murit la waaye loo mën a wax dafa équilibré woon ci confrérie yi man mi sama waajur xaritam lool ñu amoon ay relation yu baax yaa ngi dégg loolu mooy Sénégal bu dee wàllu ethnie yàlla suturaal nañu ci fii séeréer yi ak tukulóor yi dañuy kalante joolaa ak séeréer yi di kalante ñun Sénégal boobu lañu ñu donn ci sunuy maam Séné Sénégalu dialogue islamo-chrétien waaye bu fekkee ni dafa am ñoo xam ni dañuy dugg ci ci ethnie jàmbur di dugg ci vie privée jàmbur di wax taxaw ni diw mi nañ ko rey publiquement dara du leen ci fekk ñi yor justice bi dégg ko amuñu courage woo ñooñu sanctionné kon tey jii bu ñu bu ñu taxawee Ousmane Sonko ni moom di wuyu ji justice point d'interrogation dañoo war a taxaw ñu xool lan moo tax mu wax ko Suzanne Camara yaa ko dégg dégg naa ko taxaw na fii ni Ousmane Sonko dañ ko war a mmh. dañ ko war a rey publiquement la ko wax nëbbu ko fan la mujj mu ngi toog këram Penda Ba taxaw na fii saaga ethnie wolof yëpp dañ koo jox passeport mu dem tukki loolu ci régime bi la xewe gis nga réew day toll foo xam foo ñu waxante dëgg parce que mënuñu seetaan ñun réew mi ñu koy taal ñun mënuñoo daw génn réew mi réew mi lañ am il faut ñu waxante dëgg kuy wax naan ñun dañoo far neexee fii ku mu neex am nga droit far fa la te wallahi azim man politicien bu ma jaral wax lu du dëgg amul du Sonko du Macky Sall mhm. parce que kenn ci ñoom defaluma dara man li ma am Sénégal moom ma ko defal mhm. man li ma am samay waajur ñoo ma ko defal ñoom ma jàngal ñoo ma formé réew mi moo ma may bourse ma dem jàngi réew mi moo ma taxaw kon man du ma bokk ci ñi nga xam dañuy seetaan ba réew mi tàkk liy dëgg mooy tey réew mi boo jógee songu Ousmane Sonko ni di nga ko jàpp ñaari choix moo mën a am Abdou Khadre buñ naxante. yan la Ousmane Sonko bu la du ma wuy ji nga jóg ni da nga koy forcer pour jàpp ba mën na cee des parce que man xam naa nit ki de fréquenté naa ko déglu naa ko xam naa ban genre nit la bu nee damay dee suba suba lay dee loolu xam naa ko ci moom. kon Ousmane Sonko boo forcé ba bakkanam des ci sa loxo Abdou Khadir dama bëgg baax ñu déglu parce que moom magum waxoon naa ko laa du magum xamoon naa ko gis nga bu bakkanam desee sa loxo yóbbu nga ci réew mi guerre civile indi nga ko ci réew mi guerre boo xam ne dootul ah. te loolu souhaité ko ci réew mi ngi nii suñu wet sori wuñu diw du bokk wala diw nañ ko éliminer wala diw fii la bokk wër ta réew mi moo taal Côte d'Ivoire li may wax am na wala amul mm-hmm. yóbbu réew ma ci guerre civile pendant des années ak ivoirité. waaw. moo taal Côte d'Ivoire. est-ce que tey war nañoo seetaan Sénégal benn minorité ñu taxaw ni diw mi war ta bokk. démb maa ngi woon ci meeting bi doomu Mariama Sagna yi nga xam ne dañ leen a rey. Mariama Sagna doom Mariama Sagna xam nga dañ koo rey. bien man bi ma ñëwee ñu présenté ma xale yi ni ma ñii ay doomam lañ sama ronkañ dafa war dal sama dënn ay xale yu ndaw dossier boobu fu mujj mujjul fenn. kon ñi nga xam dañoo bëgg a takki rajo naan Ousmane Sonko dafa défier justice bi Ousmane Sonko dafa dem ba gisatul boppam ci justice bi est-ce que dégg baax wax mhm. dafa dem ba jàpp ni justice bi dafa am kumba am ndey ak kumba amul ndey moo tax mu taxaw fii mu taxaw man nag li may wax bu caaxaan jeexee dëgg des man réew mi ma ñora ah. barke Cheikhu Tidiane laa lay waatal billaahi wallaahi tallaahi man bugguma Sénégal tàkk te man xam naa ni yoon wii ñu tegu buñ ko wàccul réew mi dina tàkk ba jeex tàkk parce que réew yi tàkk ñun gënuñu leen Syrie Syrie ay saxaaba ñoo fa tëdd ay saxaaba yu àndoon ak bi ñoo gën a foor suñ sëriñ si ñuy wax fuuf sun sëriñ si ñuy wax li ko commencé ci ñi ñoo ngi fiy dégg ñëpp Cheikh Omar Seyda Ji Malick Serigne Touba maam Limaamu ñoom ñëpp saxaaba yee leen gën a foor mm-hmm. te Syrie ga Syrie tàkk na ay saxaaba ñoo fa tëdd foo ñu waxante dëkk kon ku naan réew mi du tàkk mag mag ñi fi tëdd waxi tàppale ngay wax yaa ngi dégg Égypte boo demee am na soxna soxna yonent bi yu fa tëdd yaa ngi dégg Égypte yàllaa ci def sutura waaye réew mi da doon dem ci guerre civile te li ko indi yëpp mooy ñàkk